Pape Alé Niang ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu seen auditeurs yi. ayu bés bi génnee nga benn livre tuddee ko scandale au cœur de la République le dossier du code ndax euh, mun nga ñëw présenter sa téere boobu. jërëjëf xam nga muy yow di man di beneen sénégalais ñëpp ñu gën werante ak waxtaanee rapport bi nga xam ne OFNAC da ko génne. rapport boobu mooy jur sax dàqu ki nga xam ne moo di Nafi Ngom Keïta ci bopp OFNAC ñu gis ne rapport boobu. dafa am ñaari kuréel yoo xam ne dañ leen dut baaraam na yor wuñ fa yor sellul di kudd ak poste bu kudd bi nag moo gënoon jur coow ndax jaraloon na sax président la république mu teqali koog président of na waaw mu nekk wareef si képp koo xam ne journaliste la bëgg a nekk ci wàllu càmbar ak yooyu jël rapport bi jébbal ko euh, fexe ba bind ci téere jébbal ko sénégalais yi ku nekk nag lire rapport boo liiree rapport bi ba pare yow nag après nga xam lan moo xew ci biir rapport bi liñ ci wax lan la est que lii ñu wax nii war na tax ñu jël kii nga xam ne moo def ñaawte fii teg ay daan wala déet wala ak lii te nga xam ne moom fi xew na lan lañ ko mën a jàngate est ci gouvernement sobre vertueux bu mel nii mënees na ko nangu loolu yëpp moo tax ñu jël sunu temps sukkandiku rek amul lenn lu ñu yokk du virgule du point du dara ci rapport bi nga xam ne moom la turam bind ko nag expliquer jaar-jaar yi nga xam ne am na ci rapport bi ak jafe-jafe yi nga xam ne bundu xatal nañ ko soxna si dina fi ngom kayta ba fi mu nekk nii moom si boppam ah dafa jël sax disponibilité pour am jàmm yaramam ndax nag liñ ko doon bëgg a toroxal ndax ci rapport rek bu mu génne lu la dégg ngeen ko ci rapport boobule ñun nag dañoo bëggoon may sénégalais rek ci téere bi ñu jàngat ko xool la ca biir xam nag bu baax a baax lan lu of nag liggéey biir COUD. alors yow noo comprendre surtout dossier bu mel ni COUD ak liñ ci wax yépp ba léegi amagul ay sanctions. waaw xam nga réewum Sénégal dafa bëri théâtre trop théâtre moo bari ci yorin bi xam nga xam nga théâtre dafa bari ci yorin bi soo xoolee liñ ci am ci ay kuréel yoo xam ne ñooy war saytu wàllu corruption wàllu luubal. toll na ci juróom mbenn ba juróom juróom ñaar teewul xayma bi ñu xayma réew yi ci at mu nekk ci wàll guerre Sénégal ci ndarda yi lay guerre ba tey ci ndarda yi la nekk ba tey kon dafay jaadu tamit nit ñu war a posé wu des questions xanaa kuréel yooyu def ñu liggéey bi ñu war a def wala ñu ngi koy def te du am timit lenn loo xam ne moo ciy topp ndax ay rapport naam dina génn chaque te nga dégg rapport xool gu ci mujj rek dafa ñaaw Cour des comptes ay magistrats ñoo fa nekk xam na lu loi te lu ko jàngal magistrat magistra yooyu le ñoom ñoo fa nekk 2014 loi bi ni leen at mu nekk war ngeen génn benn rapport pour xayma yorinu réew mi ñu toog 2014 ba 2020 di génne di doog génne ay rapport ñu leen di laaj ñuy wax dysfonctionnement te li waral génne gi. moo dafa am kenn ci ñoom am fulla am fayda doon jiite Union des magistrats du Sénégal di Aly Niane moo bind bataaxal président cour des comptes bi ne ko yow yéen a ngi violé loi at mu nekk dañoo warloo askanu Sénégal génne rapport siiwal ko ñëpp jot ci mais rapport yooyu day génn ba pare foo koy fekk ci tiroiru justice bi du ci am benn liggéey boo xam ne def nañ ko kon dafay jaaxal sénégalais yu bëree bëri loolu tax nag may wax na réew mi théâtre moo fi gën a bëri kaw jëf dëgg ci li nga xam ne moom la ñu yoree alalu askan bi looloo tax nag day jaadu ñu journaliste yi léegi eh, dañ ciy woo suñu mbokku journaliste yëpp ne lépp loo xam ne mooy rapport ak yooyu bu ñu nekkee ne am nañu ay pexe ba jot ci loolu dañ may doomu sénégalais yi ñu liir rapport bi càmbar ko xam ko bind ko jox ko téere jox ko sénégalais yi sénégalais yi liir xam loolu moo ci am solo. donc yow rapport yi yéex a génn danga jàpp ne daray politique mi ngi ci. Ah, waaw daray politique mi ngi ci kay parce que waa léegi lan moo war a sabab ñàkk génn bi te nga xam ne loi bi daf la ko teg ne doo ko war a génn lan moo sabab ñàkk ñàkk génn bi soo leen a ñoo ne dysfonctionnement interne mais dangay mais. nañu waxante dëgg temps Abdoulaye Wade chaque jour chaque année cour des comptes génne rapport rapport yëpp man boo ñëwee mën naa la ko tegalal ne bii ak bii ak bii ak bii parce que dañ ko doon génne ba pare distribué ko sax journaliste yi lu tax génne wuñ ko boobu ba léegi loolu moo jaaxal Sénégalais yëpp lay wi ñuy jox moo di dysfonctionnement interne loolu la ñu wax man gëwuma loolu am naa sañit sañ-sañ tamit ñàkk gëm loolu d'accord kon ci wàllu woowu mun nañu wax ne Ablaye Wade moo ci tane ki Sall ndax euh, lim nga sànq euh, Modibo Diop ak bay laa Wane ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp ci ay rapport lañ leen tëj moo taxoon waaw Ablaye Ablaye Wade lu mu bon bon yow foo dee histoire a Koundu Ndiaye noo ko xamee du rapport ARMP foo fa nga ko xamee ci temps Ablaye Wade la Modibo Diop bu Azer Ablaye Wade dugal na ko kaso kii nga xam ne mooy la Wane dugal nañ ko kaso loolu yëpp ci la loolu yëpp ci ay rapport lañ sukkandiku limal ma tey jii de ba 2020 bi kenn ku bokk ci njabootu président Macky Sall rapport duut la baaraam yu yoon def ci lenn lu toll tafatul ay ni ñàkkal bokk ak moom kay lang ku mel ne Khalifa Babacar Sall rapport am bu UG e baraluñ ko justice bi na mosu ñoo gis lu ñu mel. àddina yëpp d'accord ne ni ñu traité dossier bi dañ ko war a bind ci euh, recordu Guinness ne pour la première fois ñu gis dossier boo xam ne jugé nañ ko première instance matul ak ñu def ko appel yóbbu ko euh, cour suprême def lépp tënk ko taxañ ko waaw lu tax yeneen rapport yi kenn càmbaru leen waa est-ce que lii bu wéyee xel du dem ba tey ci suñu institution yu mel ni cour de comptes wala IGE. non xel mun cee bañ a ñàkk tey waccu waccu kay la yor wante tey tey moom weesu weesu nañ ko moom ndax nag gis nañ nag suñu nekk nii suñu organes yi moom organes yi de contrôle yi mën nañ def rapport yu mat sëkk ñu ngi wax CENTIS wàllu blanchiment d'argent lu toll ci cinquante cinq dossiers mi ngi foofu CREI yi ñaata dossier la ñu waxoon ne moom la ñuy càmbar du vingt cinq man waxuma ko procureur spécial moo ñëw toog conférence de presse mu ne vingt cinq dignitaires seront poursuivis am na ñoo xam ne ñu ni dox nii seen dossier ma nga ca yi mais nag transhumé nañ comme transhumé nañ seen dossier kenn du ko yëkkati da bëgg ñëw gëmloo nag gouvernance sobre vertueuse mais naxoo kenn sa bopp kay ndax. kon su ma la déggee dafa mel ni Pape Alé sori nañu am euh, justice bu moom boppam. waaw parce que xam nga ma wax loolu parce que organe de contrôle yi man dama dégg Seynabou Ndiaye Diakhaté mu ne. vingt et un dossiers mi ngi ci kaw table procureur te vingt et un dossiers yëpp off nag moo ko fa déposé ba deux mille vingt vingt et un dossiers amul benn bu ci bougé warul tey xel indépendance justice du man maa koy wax magistrat yi ci boppam saa bu ñu dajee séminaire ak du colloque bu ñu mujjee def fii lan lañ wax la justice sénégalaise est très loin d'être indépendante président Macky Sall amul lenn lu mu def pour l'indépendance de la justice lan la def moom ci euh, référendum bi conseil constitutionnel la jëlee ci juróom yóbbu ko juróom-ñaar juróom-ñaar nit donc ba léegi mooy siégé ci conseil supérieur de la magistrature loolu mooy ay dëgg yoo xam ne du lu xam nga man je te parle que de fait ay fait rek laa lay wax loo xam ne kenn mënul wax ne amul amul réunion bu magistrat yi mësoo organisé te déggoo ci seen communiqué ñu wax ci indépendance de la justice dem nañ ci ba organisé ay euh, colloque kon kay nga xam ne ñun tànk ginnaaw lañ gën a am ko tànk kanam. waaw ginnaaw bi sa livre bi génnee Cheikh Oumar Anne moom itam euh, yëkkati na ay kàddu weddi d'abord euh, li nga wax yépp waaye ne daf lay yóbbu ci yoon loolu loo ciy tontu. man gis nga soxna si li ma li li li may wax rek xam nga duñ la won ne lee lin la ngay xool baaraam bi la ko wax man sama yoon newul ci loolu xam man def naa li ma war a def pare naa ci du ma ci tontu kenn parce que dama dama bu ma woo ki dem mu ne ma bu nekkee ne mbott mu tëb nga tàcc say loxo dina booy kon da lay ñaan lenn mu ne bul tontu kenn yow li nga war a def def nga ko ñii itam nag amaan na ñoo xam ne sax da leen di may bës boo leen di tontu man du tontu kenn laa la wax ku yëkk yëkkati kàddu jëmale ko ci papaaleem du ma ci tontu xam nga tax du ma ci tontu bind naa téere bi ñoom taxuñu ma bind téere bi sénégalais yi moo tax ma bind téere sénégalais yi nag wuyu si nañ ma ca ca ca fa ma ko doon defee ah liggéey ay ñi ko rafetlu ndax nu kazaalika ñi ko rafetluwul tamit ndax nu kazaalika waaye nekk fii di tontante moom man maa ngi waaj leneen maa ngi waaj leneen mais pare bii pare naa ci moom du ma ci tontu kenn. leneen mën nañ ci xaar yeneen livre par exemple. waaw waaw. waaw waaw ndax mën nañoo xaar itam Pape Alé kon euh, rapport bu génnati rek euh, mu daal di koy exploité euh, def ko livre comme ni nga defee bi ant tout cas daal en tout daal lenn xam naa ko moom lépp loo xam ne sama jot may na ma ko ak tamit ma gëstu ko moom ñoom nekk rapport bi sama temps may ma ko du ñàkk ma liggéey ci daal. Pape Alé Niang ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax.